ñun de mën nañoo wax ne jotuñu ci ndimbal li parce que ndimbal moom gisuñu ko tey gisuñu ko suba ak démb den ko dégg daal lañ ci am am na nag luñ dégg ne ñëw na fi mais ba mu ñëwee itam ñun chauffeurs yi gisuñu ci suñu bopp kenn joxuñu ci dara li ñu dégg ne huit million ñëw na ci garage bi bi mu ñëwee ci euh, turu regroupement des chauffeurs ak gaaru ceer li ñëw waane ñun inter interurbain ak urbain kenn koo xam ne nii jot nga ci parce que lii ma lay wax maa ngi 356 carte chauffeur professionnel yoo xam ne ay interurbain ak commune ñi ngi nii nee nañu jotuñu benn dërëm te ndimbal li yaakaar naa ne na ma ko déggee ñu joxe ko ca garage ba mooy ay coxeur ay emploi Serigne Sall Serigne Sall amul benn emploi Serigne ñun ñoo koy fay ñun liy dem ca kees ga ñoo koy cotiser fii ngoon bu ñu wàccee jox coxeur bi fanweer fukki dërëm ya dem ca kees ga mm. interurbain bi mandat la coxeur yi ca garage ba xëy si jour au jour bul liggéeyee ku xëy si wut duñ la fay ku liggéey ba ngoon ñu dindi lay dem ca caisse regroupement ba dugal ko ci distribuer la nga xam ne mooy ne ca taabal ba kooku sóor bu ne fayee ko ci sa wërsëg loolu ñun ci loolu la ñuy dox amuñu entreprise amuñu Orange Money buy gagné ay bénéfice ñun ñooy làmb suñu poche di def lépp ci suñu caisse kon nag ñun bu ne ministre de transports ñun xamuñu ministre de coxeur mu jël xaalis bi ko jox ñoo xam ne yoruñu ay permis coxeur day am transport dem ba dawalatul dem garage kooku yelloo na ko mais nag mbir mi damaa yaakaar ne bu ne ministre des transport da ngay dem ca chauffeur ya dem ca transporteur ya mm-hmm, woote commission ñu toog nga ne leen lii de ministre bi moo leen ko dimbalee ndax mooy suñu jawrin te loola mu def appui bu baax la moom ministre bi ñu ngi ko ciy sant ak staffam ak lépp ak 14 régions yi te it nañ dégg noonu ne ko 14 régions yi doxale niñ ko bëggee ñu doxale ko ñooñu noonu lañ ko doxale ba ci département yi bu ci garage Ndindi. 2 millions yi ñu jot dañoo jox chauffeur ak coxeur. ñun nag quoi que ñun chauffeur bokkut interurbain te mën naa laa limal ay chauffeur seeni i carte ngi nii du ma cent lim. 356 personnes ngi nii yoo xam ne ni amu ci kenn ku jot. Mmh. kon nag bu ne distribué nañ ko ci kaw yoon dañuy wax lu leen neex. loolu nag c'est trop c'est parce que am na page bu fi jaar ñoo ngi ci ci appui ñun gis nañu garage yoo xam ne dañoo génne li ñuy cotiser. ñun li ñuy li ñuy joxe ñun ñoo koy joxe ci suñu poos di ko denc kon saa buñ ko soxlaa dañ ñu ko war a jox ci lañ koy fay fay ci ay nitam waaw kon nag ñun na Sénégal gépp dégg ne ñun huit millions yi ñu ministre bi tudd gisuñu ci benn dërëm ñun chauffeur te lii ma la wax mille trois cent cinquante yi am nañ nuñ bëggoon a taxawee mais ay calmement la ñu am service de mille boo ko déggee ñoom transporteurs yi ñoo fay dem nga xam ne da nga am agrément ñooñu ñooy inscrire foofu parce que oto bi mën nay dem te amul licence amul ah, chauffeur bi ko yor amul ak euh, transporteur bi amul agrément kooku du transporteur moo taxoon nag ñu koy xool boo xam transporteur yi ñaata la parce que loolu moom ku koy seet da ngay dem service de mille parce que ñooy defar kayit yi ñooy defar licence ñooy defar lépp foofu nga ko mën a amee lu la leer loola seen liggéey la. suñu masque gisuñu ku ko defar parce que suñu vingt millions cinq cent yi six mois yi dañ ci doon laaj appui ñu cee jot kon ñun regroupement gisuñu mu def benn masque. léegi nag gaaru ceer moom benn masque bi jar ñaar fukk génnu fa parce que nit ki mënoo di ko laaj appui mu lay jëndal masque ñii waa Dame Diané yi nga xam ne ñooy groupement féminin boobu ñoom defaroon nañu quarante cinq mille masques topp marché ak garage indi woon nañ ci. à part loolu ci tout regroupement des chauffeurs bi ñu bokk ñun gisuñu benn effort benn act bu mu def ci mbas mi depuis mu départ rek parce que ñun li ñu ko demandé sax defu ci suñu xaalis parce que dañ ko doon 20 millions 500 yi fi ne woon dans 6 mois man ci sama xalaat waaw mais boobaak léegi maa ngi ciy dégg sax ay wax yoo xam ne nii ay daayira yoruma daayira duñ séddale xaalis bi wax yu yàqu yooyu di fooye sam xel ñoom wax naa leen lool nee naa leen seen euh, alal ngeen di war a xàmmeek alalu mbooloo parce que ñun néewuñu fi rek pour di dajaleeb xaalis benn groupe di ko jël loolu waxoon nañ ay nit ñu bëri ñëw fi di réclamer kon nag euh, man maa ngi alter di wax képp koo xam ne war nga cee wax wala nga war cee dugal sa loxo balaa daraa xew parce que yàgg na nag léegi mat 4 mois te it liñ ci war a def ñu ngi koy def mais Serigne ñi mu bëgg a doxeek ñun loolu taalu dëkk la. lu jiitu 8 millions yi préfet am na ci ay ampliation ak yeneen autorité waaw ñu ngi ci loolu waaw. léegi nag loolu nag dafa am ñoo xam ne nii comme alalu mbooloo la chauffeur yooyu dañuy am matu dem ci kilifa yooyu wala ñu dem ci presse bi comme nii wax ñu dégg leen. li ma leen di lancer appel daal mooy ñoom def nañ li ñu war a def waaye ci loxo yi mu tegu moom doxalewu ko na mu ko war a doxale parce que toujours li ma lay wax mi ngi nii maa la ko yëkkatil nga xool ko cent cinquante 356 personnes yoo xam ne ñu ngi réclamer xaalisu seen xaalisu bopp di réclamer xaalisu. ministre de transports ak ni ko doxale parce que bu ñu nee transport moom ku yor permis leen wax yor transport ndax boo nee permis sax di nga ci boole ku ci bokkul waaw mais ministre des transports ak gare routière moom ministre bi li mu wax ñëpp ko dégg ci télé yi publiquement kon na ku ñëw doxale ko ne ne nit yow yaa def lu la neex rek mais warta demee noonu